alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh batay yeen ñi top rek télévision Touba Monde bi e TV té suñu studio nek ci diwanu Italie waye ñuy and ak yeen ci online ci diwanu Italie waye di and ak yeen nak ci mbollem organe de presse yi nga xamne yépp dañu and ak Touba ci kanam di liggéey ak moom. E ñu ngi tok nak ak ki di Serigne Mamor Mbacke nga xamne xalaati daayira bi di Mafatul Jinaan ci mom la jaaré ñu def lu am solo lo xamne ne e, c'est la première fois mu am. mooy daa daaira bu accepté Touba ca kanam 100 pour cent jox ko mu teg standam joxe ay membre am ñu ne ci ba pare jox leen temps de parole ñu jël ko ngir liggéey sëñ Touba bu ñu ci kon sëñ Mamor bu fekkee da ngaa xalaat bu mel nii mu dem ba toll fii ñu def liggéey bu toll nii fukki at ak juróom-ñaar wëññikuwaat Touba ci kanam ñëw ñu ñëkk cee sóobu lan ngay wax mbokk taalib bi ak lan ngay dénkaane ci liggéey sëriñ Touba boobu. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallahu taala ala sayyidina wa muhammadin wa alihi wa ah, mbokki jullit yi ñu ngi leen di ku nekk ci turam ak santam waaw ah, bi maa ngi si jiital sëñ Abdourahmane Mbacke mi di doom ci sëñ Mountakha xalif sanaa de murit yàggal ko fi bu baax a baax ak taalibe yëpp waaw ah, sëñ Mbaye sedd na trop. waaw ndax daayira bi bi ma koy wax Abdoulaye Ba ñoom yaakaaroon naa du toll fii waaye Sëñ Saliou moo ci def ñaan def ci baatin ndax wax dëgg yàlla keroog ba ñuy ñëw tubaa ñaar fukki junni lañu indi mate ci ab junni lettre ba maa ngi ko bindee ci barabu Sëñ Fallou ànd ak ñoom dem ci señ Saliou sëñ Saliou bind ma faatilu jaan teg ko sama loxo ma teg ko ci loxo laay Ba kon nag sama xol sedd na sant naa leen gërëm leen sant naa yàlla bu baax bi daayira bi tolloo fii maa ngi nuyu sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne sama xarit la sama wëllëre la mbokk nga xam ne Sénégal fu fu ma jëm ànd ak moom Gàmbi gi fu ma jëm ànd ak moom maa ngi koy sant bu baax te ko gërëm nuyu sëñ Pape Demba Diop ci taxawaayam bu rafet ci dëkk bi. ndax wax dëgg yàlla jàppale na daayira yëpp jàppale dëkk bépp am na ngërëmal sëñ Muntaxa xalif général bu fi toog rek am na ngërëm moom ndax wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na nuyu sëñ Muntaxa bu baax a baax di ko sant sëñ Muntaxa Jóob imaam maa ngi maa ngi leen di nuyu bu baax mboolem taalibe yëpp bàyyiwuma kenn ma faatiwul jinaan ak mboolem daayira ñi ci ñi fi teew jàmm maa ngi leen nuyu da leen sant da leen gërëm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 di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di jottali nuyoo nuyoo Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir xalifa général di murit di ñaan suñ boroom yokk fanam yokk wéram yokk kàttanam ba liggéey bi ba liggéey bi naalal Sëriñ Tuubaa mën a sotti ci loxoom muy naal yim fi fekkoon mu yeggale ko ci jàmm naal yim naalit mu yeggale ko ci jàmm ànd koog murit yëpp ci barkeeb sëriñ Touba nuyoo bi ñu ngi koy teg ci loxooy jëwrinam yi nekk ci Gàmbi jiital ci sëriñ Mouhamadou Mourtada Diop muy imaamu muridi fii ci Gàmbi di ci teg sëriñ dem ba mais mi nga xam ne moo yor baatu Seex Mamatul Mountakha ci dëkk bi fii ci Gàmbi nee na nuyoo bi ñu ngi koy teg ci loxo ñooñu ñu lawal ko ba ci murit yëpp nekk ci biir dëkk bi ci kii gën a mag ba ci gën a ndaw nee na kàdd yi nga xam ne moom lay jottali nee na mu ngi koy ànd ak mbokk bi nga xam ne ñoom la fekk fii nee na ki nga xam ne moo ci jiitu ji mbokk mi di sëriñ Mamor bi nga xam ne mu ngi nekk ci wetam ak mbokk yu baax yi ma àndal ñëw ci bis bii. nee na ñoom ñëpp ñoo ngi ànd di leen jottali nuyoog Cheikh Mouhamadul Mountakha ak i ñaanam ak i ngërëmam ak i cantam ki mbooloo mii mbooloo mi nga xam ne mbooloom Cheikhul Khadim la nekk fii ci Gàmbi taxaw fi taxawaayu sëriñ bi kenn ku nekk kenn ku nekk ci ñoom taxaw na taxawaayu sëriñ bi ñoom ñëpp ñu àndaat taxawaat taxawaat taxawaayu sëriñ bi kon ñii kon lii ci ndigalu sëriñ bi ci lañ ko def ndax am murit fu mu nekk nekk ci la sëriñ bi bëgg moo ngi ci ndigalu sëriñ bi kon lii ci ndigalu sëriñ bi ci la bokk nee na ñëw gi ñu ñëwit ci ndigalu sëriñ bi ci la bokk ndax daf noo wax ne fépp fu ñuy defee lu baax digal naa la nga teew ca rawatina nag njaboot sëriñ Touba gi nekk fi ci bi fu ñu mën a nekk ci àdduna fu ñu mën a nekk ci àdduna di fi yëngu ngir sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na fu ñu mën a nekk ci àdduna ñoom sëriñ bi nee na fu ñu yëngu yëngu murit nañ fay teew teewal ko fa moom Cheikh Mamadul Muntaqa nee na teewaay boobu moom la war matewu ko ak njabootam ñoo ko ko mën a matale fépp fuñ koy defee ku fa doon jabootam rek yaa fa teewal Cheikh Mamadul Muntaqa yaa fay Cheikh Mamadul Muntaqa nee na bu fi kenn ku sant Mbàkke nekkutoon itam te sëriñ Moutala Diop nekk fi nee na kon su fi benn Mbàkke Mbàkke nekkutoon te sëriñ Moutala Diop teew fi rek benn na ni moo fi teewal Cheikh Mamadou Mountakha kon bu fi sëriñ Moutala teewutoon it sëñ Pape mii teew fi yor fi baatub sëriñ bi kon nee na sëñ moom moo fi sëriñ bi kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi fi teew teewaayu sëriñ bi bari nañ lool yaatu na lool te loolu li ko waral mooy mbooloo mi jóg gi ñu jóg dëgmal sëriñ bi te Pastef rekk tax ñu def ko ñu wane ko ci wér nag ndax lii te ku ci teg sa bët xam ne Pastef la xam ne Pastef rek moo ko man pas-pas rek moo ko man kon sëriñ bi nee na nee sëriñ bi nee na mu ngi leen di dénkaat yoon wi ngeen aw du yoonu Pastef bu leen gestu seen ginnaaw xool leen ci seen kanam xam ne njëriñ rekk la luy wéy la ba ëllëg yowmal qiyaam te foofa loo fa yóbbu doyut kon lii ñi nekk di liggéeyub sëriñ bi nañu feddale waa suñu laxasaay bu baax dëgëraatal suñu taalibe bu baax suñu diggante sëriñ Touba ndax liggéey bi dafa yaatu dafa rëy dafa bari te ci murid rekk ñoo ko war a def defal ko sëriñ bi nee na wax nañ ci benn léegi muy exemple boo xam ne nee na moom day am saa su nekk di ko dégg muy ñi nga xam ne ñoo fi teewal Touba ca kanam nee na liggéey la boo xam ne tur wi nee na tur wi rek dafa dal xel ca kanam nee na loolu day liggéey boo xam ne ku jub def ci saw ñaq xam nga ne yow moomu liggéeyal nga sëriñ Touba ndax ñi ko jiite ñoom sëriñ bi rek moo leen yitteel te liggéeyub sëriñ bi rek lañ ciy xool ñoom ci seen kanam ak seen ginnaaw sëriñ bi rek lañ ciy gis bañ ko tàmbalee ba léegi li ñu loolu Pastef rek moo ko man ndax yàggut te yaatu na lool mën na cee lim ay jëf yu bëree bari te yu mel noonu bëri na lool ci murid yi kon ci ngay xamee ne murid bi moom murid yi sëriñ bi rekk a leen ñor leneen ñoru leen àdduna ñoru leen seen bopp ñoru leen seen alal ñoru leen sëriñ bi rek moo leen ñor ndax loolu ñu moomal seen bopp dañ ko jébbal sëriñ Touba kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin loolu moo di murit loolu mooy pas-pas mooy pasteef kon daanaka dégg nañ ñu baax ñu fi teew war waxtaan waxtaan wi noonu kon ñu leen di bàyyee ñoom ñi nga xam ne ñu baax ñu fi teew ñu yeggale waxtaan wi nee na moom dañ doon ubbi di jottali kàddu sëriñ bi Cheikh Mahamadul Muntaqa di jottali mbégteem di jottali ñaanam ci mbir yi nga xam ne ñoo dëkkee Gàmbi ndax seen Pastef ak seen liggéey bu rëy kon loolu lañ ci doon wax nee na ña nga xam ne ñoo ci ñoo ko jiite muy Serigne Abdoulah Serigne Abdoulaye Ba ak mbooleem ñu àndal liggéey bii wax dëgg yàlla xelam dal na ci bu baax a baax a baax nee na nim leen gisee yokku na mbégteem bu baax a baax gën naa dalal xelam bu baax a baax ndax taxawaay bii ak jëf ju réy ak yitte ju réy ay ndaw rek seq ko ba egsil ko fi mu yegsi comme Serigne Touba moom alhamdulilahi rabbil alamin nee na jëf juré ji ngeen jëf daal dalal na xelam bu baax baax te bu dalalee xelam rek benn ne xelam Cheikh Mahamadul Muntaxa dal na kon sëriñ bi nee na mu ne leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla fay leen yiwu rëy rëy jëf ji yàgg ànd bi yàgg te sëriñ bi nangu leen ko ci barkeb sëriñ Tuubaa nee na sëriñ bi mu ngi dellu di sant ñépp di gërëm ñépp di ñaan suñ boroom may ñuy téewee ko déwén ak jàmm ay mbooloo di séeral ak cant daayira bi di daayira Mafaatihul Jinaan ci seen yitte ak seen taxawaay ci ànd liggéey Sëriñ ba lu mel ni am tey mënuñu leen bañ a sant gërëm leen ndax li seet na xool ndax organisation bi dafa ëpp ci ñun liñ fi indi woon dem na ci one thousand euh, one thousand euh, euh, one yoo xamante ne bii euh, yokkaat nañ koy yoon terewul ne nit ñi mënatul leen a euh, welcome ba tax na kon loolu ñu ngi ciy ñu ngi ciy sant ñëpp di ci gërëm ñëpp ci tur daayira Mafatihul Jinaan ba tax na wax ji du bari waaye ñu ngi gërëm suñu yaay ñu ngi teew ci jotaay bi mais lépp moom la ak suñu papa di gërëm suñu dëkkandoo yi suñu xarit yi gox bi ñu nekk Serekunda suñu dëkkandoo yi ak ñi ñuy liggéeyandool ak suñu ay njaboot suñu ay soppeek ñëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm que waxtu bi dafa gudd ñi ñu àndal bis bi nag suñu xarit suñu doomu ndey Serigne Gana Messere ñu ngi koy sant di ko gërëm niki noonu tamit Serigne Soy bu Mbuub ak Serigne ak sa Samb ñi ñu war a àndal bis bi ak ñeneen ñi des ñëpp bu ñu limee rek dañuy desal waaye di jiital njiiti fédération yi daayira yi ak mbokki taalibe yi yëpp. di wax ne nag su ngeen gisee tey ñu génn fii dañuy won nit ñi rek ne Serigne Touba moom nekku ci ay yére sëriñ Touba ci xol la nekk. yàlla seere na ko looloo tax tey ñu génn fii euh, ndax ñi ñu miin di ñu gis xam nañ ne ñun dañ fonk culture yére olof moo ñu gën a lu bari ñu bari tey lañ mas a gis ñu sol yére tubaab comme nii waaye ñu leen di woon ne ñun li ñu gëm di di ci dox euh, di ko dundu xam nan ne du yëfi nasaraan ba looloo tax tey ñu ñëwee nii ngir surprise nit ñi ñëpp leen xam ne nag ma ne nan ci max ma ne ci siim kon ba tax na ñi ngi leen di gërëm di gàttal suñuy kàddu di jaajëfal ñëpp di ziar ñëpp ñi nga xam ne àndoon nañu ñun bis bi ñu jàppale ñin tudde bis bi ci ay cër yu dut jeex ñu tudde ma bis bi may sant mbooloo mi ko def ak soxna nday Ñang jëwriñ bu jigéen bi soxna euh, sëñ Abdou Lahad Fall ni ki noonu ak soxna Mbeen Njaay Faaraat ak gisa foona yeneen yi des yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon dañuy yemale foofu suñu kàddu rek di wax ne nag ku am gën tëraani maanaam li duuf ci nawi xaju ci cinni waye ñi ngi gëreem ñep ci turu suñu jëwriñ pap Demba job ak serigne Abdourahmane mbake ibnu sëriñ Muntaxal Basir khalifa general de Mouride di jégalu ñep tay jéggal ñep di sant ñep ndax lotu nañ ci lim ñep ak taxawaay ninyu ni ñu nit ñu jappalé ci li nga xamné ñetti semaine ci lañ ko waaj samedi bi mujju ñu koor lañ def réunion d'accord ci def ko ci jàng amon khadafi musku ban fa joggé dimanche mo fa do alterné ñu koor ak talata te ñu ngi ci ñeenteelu semaine bi war a jeexal koor gi ci kàttani yàlla kon boo gisee lu mel nii ku ko ku ci teew xam ne du liggéey bu ndaw kon ñu ngi sant ñun ko bokkaloon góor ak jigéen mag ndaw rawatina ñu ci ànd ak ñun ñëpp di sant waa tubaa ci kanam ak seen présentation di ci soñu taalibe yëpp ak jëwriñu daayira yi ñu jàppale leen ci liggéey bi kon fii rek la ñuy yamandi ndax guddi gi dafa xat jërë sol déguisement bi waaw góor joxe koy wu rafet wi nga xam ne Cheikhul Khadim Serigne Touba lañu fa def ngir delloo ko ci njukkoon ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ji muy lu am solo sëriñ Kamal ba tey jox ko certificat bi nga xam ne appréciation la maanaam am mbégte ci moom liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Tuubaa ak taxawaayam ci réew mi ci yoonu murit foog naa ku ne waroon na ko defal sëñ Ablaye kon sëñ Kamal loolu am na solo mu joxaat ko beneen costume comme bii mu sol terale ko ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ji dafa mel ne ba tey daf ko dafa bëgg muy soli costume suñ jëwriñ ji moom doo mën a sopp li muy sol nag waaw ma ngoog jox ko basangu jullikaay goo xam ne da ciy war di julli loolu ba tey ay teraangale yu Serigne Kamal Diouf joxe muy ñaari basang yoo xam ne basangi jullikaay la lii tamit di napp boo xam ne dañ koy teg ci bunt boole ci tamit jasneer jasneer quinze mètres quinze mètres jasneer moom moo ko joxe kon loolu am solo la tegaat ci chemise bu rafet bii kon dafa mel ni Serigne Kamal Diouf mu ne teg na ci twenty thousand dalasi twenty thousand dalasi ñaar fukki junni dalasi teg ci ay dàll maa ngi tuub euh, asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñépp euh, di leen sant di leen gërëm waaw maa ngi leen di nuyu mbooloo mi di leen sant di leen